ilaha illallah asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ginnaaw bu ma santee yàlla ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di gërëm samay goro di gërëm samay njëkke di gërëm samay xeetu jëkkër ñëpp ku si mel ni tontu jimaan mii jël naa nuyu bi teg ko si loxo nga séddale ma ko xeetu aas ñëpp su ma jóge ko nag si yéen sant dëkkandooy sant sama borom kër gi El Hadj Malick ndax euh, lii lépp moom moo ko waral waa ndax tey jii mënoon naa ñëw bañ a gàmmu si parce que ñëpp xam nañ ni sant la jógee nga xam ne kii ku sagal ay njabootam la ku sagal tamit ay jabaram la waaw mënoon naa ñëw na bañ a gàmm xam ñëw na defar gàmm gi lépp neex lépp doy macha allah lekk beeg lépp doy na soo xool sa gàmmu ren bi sa moom c'est autre chose kon nag di ko sant di koy ñaan di gërëm lu mu mën ren su yàlla na mën ko ëpp yàlla bakko si kanamu njabootam nga waajuram yi toog buñ koy weere ko weere toog ba li muy def si lu baax ay njabootam di koy aaw yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wante nag fecc li su neexee ne jaa japp sama mag lepp jamba sek la ak leytu Ndour wa na ñoko jur fi ko wara julé yar ko fi ko wara yaré tek ko ci yoon bu baax na teji na mën na mag na melni ñeneen ñi want as ku ko xam-xam ko social def lu baax wax lu baax mention spéciale ñu ko ñaanal dal mo xam lu mu bëgg yalla na ko may sant na ñepp gëreem na ñepp sant nak sama mag ju baax ji sant sama mag ju baax ji Atta Sall wa mënon na mënoon dëkk wan top ma ben yoon mun na xamni ne la luma neex lay def luma neex lay waxan top ma ci dara wa damay mer sama ñëw nam awalan lu xew wax ak man lu mi dindi jëndal ma fu ñuy dem ñoy and di ñaan nak yalla bañu nak ak suñu borom kër ñu tok mo nak kay fi as beja as ñu beja so par yalla mën nako yalla nako yalla def ñu tok ba suñu ñabor gi ñu yobbu mak ba rusul ñëkk ma yobbu mak ak atta sall mën nako yalla nako yalla def asalaamaaleykum ngi ginnaw bima sante yalla julli ci Seydina Muhammad sang-sang yi maa ngi sant sama ñaari waajur di jiital tamit sant kilifa kër gi ci kër gi te mot kilifa yëpp muy Leyti Nduur mu jiital ñépp teg ñépp ci yoon bu jub yoonu siraatal mustaqima di ci teg nag sama goro bu ñaawal bi jàmba sekk ndax fuñ ne nii rekk mu ne atta teg ma fu nag fu mu tegut kenn ba ma yëg ko maa ngi koy ñaanal gudd fan wér-gi-yaram Euh, wérle wërle wërle ba yàlla bàyyi ko fi bañ koy weer ak weer ginnaaw loolu maa ngi sant sama borom kër gii dama koy wax sa du sama borom kër sama mag la sama xarit la sama kilifa la sama papa la sama papa dëddu na ma de waaye jooy ma benn yoon papa parce que taxawu na ma yërëm na ma respecté na ma fonk na sama njaboot te boobu ba léegi ju gisuma dal lan la nga xamantene ne mën na ne li ma ngi am absence papa amul li mu commencé nak sumbu ko ay ati at mi ngi koy def si ginar la commencé di ray xar di ray ay nak di ray ay nagi as malik ndour bi dee dom bu set wécc la ma ngi lay ñaanal li nga sumbu ni yalla nga koy sumbu ay ati ati ati ati ati at yalla na nga dem makka ba sa njabot gi dila yobbu dila indi dila yobbu dila indi ci li nga yaakar lepp lu bax yalla na la ko yàlla defar yàlla na yàlla teg si yoonu yiiw yàlla na yalla sam sam la sa njabot bi dama lay juro sa njabot gi rek mu judd ci farata yalla sum sunas Muhammad nga bëgg sayyidina Muhammad ba am sa dom ji tuddeeku ko lepp lu ma la ñaan ci lu bax yalla na la dal nuru waali mergam gis naa fu ñu tek respecté nga ñu bëgg nga ñu fonk nga ñu maa lay ñaanal daal yal na yàlla yokk xéewal yi yal na yàlla defa jàmm yal na la yàlla boole si milliardaire Baye Niass yi yal na si yàlla boole ñu ñaan nag yàlla may ñu sutura yàlla may ñu juboo yàlla boole ñu kii suñu kilifa la mooy papa aw Guèye mais daf ñu taf si boppam di def yëfu kilifa ah ñëpp naw ko moom tamit maa ngi koy ñaanal yàlla ba ko fi yàlla ba ko fi yàlla sàmmuñu sàmm ko moom it moom yàggul dara la tuxu si ñu ñaan yàlla yàlla na jàmm di am suñ kër rek yàlla na fa jàmm sax yaa ku ñuy xaas lu dul jàmm yàlla bu boo ko fekkee yàlla nañu yàlla jàmm dëkkal foofu dëkkoo fa ñu dem ba jàmm di fa indi lu kenn xamul daal ñuy jàmm rek yalla mën nako yalla nako def may gëreum ñep may dem taa mat mu jóge ba mbuur ki sama rak la may gëreum ñep da xartu asi aasi ñoom Tafa ñay sama xarit bi nga xamantane ñoon bokk place ba lu ne la koy wax Abdou Mbacke lu ne la koy wax sunal ko ma ngoy ñaan mom tamit am xolu muñ torop yalla nako yalla yok xolu muñ jeff sant ñep nak gëreum ñep sant na la gëreum na la waaw. suñu borom amul amul tanki ginnaw kenn du ci def di ko rëcc loo ci def ren bu déwénee di nga gis lu waaw sànq maa moom dañuy waxtaan mu ne ma moom gàmmu gi ci boppam moo gàmmul boppam waaw parce que ba ba bi gàmmu ba bi gi di des dix heures de temps xaw ma dara sotteegul mais boom gàmmu gee xëy rek sotti lépp kon nga xam ne kon nga xam ne kon du lu ñuy du ay nax du du ay nax li des daal mooy nañ ko ñaanal rek nañ ko ñaanal yàlla yokk ay xéewalam yàlla suturaal ko may ko wér may ko kàttan may ko fan bu gudd bu ànd ak teraanga nag fan bu gudd bu ànd ak teraanga bu sax dàkk ak jaamu yàlla ak mujj rafet yàlla sàmm ko sàmm njabootam suturaal ko zahiran wa baatinan xam nga barkeel njabootam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaw ñun ñëpp nag ñi fi teew yàlla nañ ko teewaat déwén bu kenn manqué te bépp soxla wala aajo bu fi wala gàllankoor bu fi nit indi boo fi jugee yàlla na la ko suñu borom faxasal ba mu set wecc taf taf taftal ci ay xéewal yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam grand bi nag comme ni ñëpp wax rek mënuñu wax ci moom ndax yàlla def na li ñu nekk nii moom moo ñu ci jiitu jaar na ci def ci lu nekk bàyyi ko nekk ci leneen ñun yàlla def ñu ñëw nekk ci ay xale chaque jour du jog ci di ñu suñ sax def ma tok ci télé wax su paré day jël téléphone am woñu rak suma sañon nga waxé ni wala nga doxalé ni di la teg ci buntu aduna noy def ba réussir koku ku lay defal lool mëno ko fay tay dëkk bi ñu ñëw doomu bañu sëñ ma tuddé moy pap Mahdi moo dugal dara tay suma ma ñëw dal fi ji ma loo xam ñëw ci dëkk bi di tégg kilifa gu nekk fii ci dëkk bi tey am nañu yow relation ñu ñuy wax ñëw leen dalal ñu day ëpp samp suñ ko doon compté duñ fi jógee man moom dinañu loo xam ni tey amaana ñooñu ñëpp sequñ kook ñoom ndax àdduna moom ndaw moom bu nekkee ku koy teg ci yoon rek yaay nitam koo xam ne du la jaay am na heure bu la gisee dafa li doxel nii barki démb rek boo ñu nekkee fii nag doon xam barki démb bi may voyage moo ci mujj xam nga ñu boole maag ñoo xam ne mënoon naa mënoon naa sonn ci biti man ma dem ñu taxaw taxawuma taxawaay boo xam ne wax dëgg yàlla loolu may wane ne baax rek moo am solo moo tax maa ngi koy ñaanal bu baax di ko wax lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal gàmm gi nag mu dem ba koy def ak ay sëtam yàlla defal ko ci lu kawe njortam lépp lu mu ci def Seydina Mohamed fay ko ay yiw ci barke Seydina Mohamed rahmaani rahim aouzu billahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ma santee yàlla di julli si yonante bi sallallahu alayhi wa di sant samay ñaari waajur di leen ñaanal di ñaanal sama yaay bi fi jóge ko yal na ko suñu borom xare aljana ci bak Seydina Muhammad sant sama borom kër bi ma àndal lii moom moo ko waral parce que su ma ñëwee ba toog fii rek moom la su ko neexoon su ma ko waxee kañ dem gàmmuñ danaa ma fu ma neex laay dem du ma dem kër aas te boobaa tamit dama koy topp fu muy wax maa ngi koy ñaanal di ñaanal aas nga xam ne du jóg saa su ne di ñu woo di ñu nemmeek du xool si lu ñu nekk fu ñu nekk fekk nañu fa waaw di ko ñaanal aussi li mu mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp si barke Seydina Mohamed yàlla na koy suñu borom def milliardaire u baay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que woote ñu wuyu si la yombul parce que xam nañ ne dëkk bi léegi kenn amatul jot ax nawet bi ñu nekk nii mais comme que yàlla yombal nañu suñu yoon ba ñu si fi ak jàmm ak salaam yal nañ ko yàgg teewe ay at yu bëree bëree bëree bëree bëri maa ngi nuyu ñëpp di gërëm mangoone sama goro bu ñaawul bi bi mu tëyee suñu mag ba tey suñu mag neewul un neewul an doomu aadama amul lu dul doomu aadama te bésu tey bi dafa doon bës boo xamante ni liggéey ci lu tuuti am lu bari dafa yomb muy guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi bii di sama ñetteelu yoon may ñëw fii ci As Ndour ginnaaw yàlla ak yónnent ma fiy jokkalante ak ay nit yu baax ma fi xamante ak nit ñu baax ndaxte montre baax yëpp a bokk heure montre baax yi ñoo bokk heure bu ñu delloo ci cosaan rek dañuy xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla lam boole lu ne loolu rek a mën a ànd lu yàlla boolewul mënul ànd Abdourahman mii dama yàlla booleel mu doon ku baax soxnaam baax may fréquenté seen place ba tey moo tey moo tey looloo indi lii kër gi bi ñu ma fii indi mën a jëmm ji bi ñu xamante ñaar ñi taxuñ ma xamante ak moom ñaar ñi taxuñ ma xamante moom dafa am ci milieu bu ma nekkon di yëngu ci la xamanté won ak mom mais mosuma mo xamné fi la dëkk bark sayidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. mo ñew fi and ak abdurrahman ñew gàmmo fi gamu gi señ bi kenn mënu la wax neexaay bi yéen ñuy wax ay neex na ak neex na yéen neex na rek ngeen xam da ngeen naan lool neex rek neex nga ci xam waye man lool lay wax kenn mënu ko nat lu fi daaw leen ko commencé woon ren mu gën a neexati déwén day gën a neex dafa am xam ne boo fa tegee sa tànk puus mu dem la puusul mu dem bërigo ci mbartal boo puusee mu dem boo puusul mu dem kii moo ñaanal boppam ñun dañu ki baax nii rek di ñaan yàlla na yàlla na yàlla na moom moo liggéey liggéey bi moo ko liggéey nit li nga góob xoolal li nga ji moom ngay góob kenn mënul lax kenn wax dëgg yàlla ma doon koo xam ne damay sawar a xam ni ku baax parce que man baaxuma te bëgg naa baax waaw ku baaxul te bëgg baax moom koy wër waaw moo tax ma sawar a ñëw ci kii mu jaral ma ma bàyyi lépp mu jaral ma man ma topp jaayante jël ci qualité yi nekk ci moom boole ci li ma amoon ndax ma mën a dem fii ñun ñëpp kii dañuy jàngal ñun ñu fi toog ñëpp ñu sommes des élèves suñ ko waxee nag dégg-dégg la laaj waaye nekkul ne ay élève leen parce que tey kenn ku fi new ku fi ñëw ku ne tey jógee dakaar du ki dafa sol otoom gasoil fay apéage am ànd ak soxnaam ànd ak man ñu ñëw fi joxuñu benn dërëm waaye lim ñuy jox moo ëpp dërëm lim ñuy jox mooy ëpp dërëm parce que liggéey léegi ñu fay la léegi nga lekk ko léegi neex na de. mais liggéey nag à long terme moom lu ko dàq ki loolu lay def ki mu ñuy nax nan roy ci moom dox ñëpp seen wàccuwaay di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén yu bëree bëri ci barke Seexul Xadim gàmm gi moom wax dëgg yàlla c'est la première fois ñuy ñëw fii di gàmm si jëmmam ji moo ñu indi nee naa ko man doonatoo rek sama patron kese waaye wax dëgg yàlla boo ñëwee fekkuma man ak moom place ba sax day mel ni moromam te wax dëgg yàlla xaaju la xaajaata nekkaat sama morom nit nag bu la jàppee noonu wax dëgg yàlla lu nekk dama koy defal yàlla xam na ko ci mikoro lay waxee surtout soxnaam yi ñoom li wax dëgg yàlla ñoom tamit yal yàlla sama borom taxaw bu baax a baax a baax ñoom ñaar ñëpp du ci man du ma nekk ci wala kee. ñoom ñaar ñëpp wax dëgg yàlla ñu baax lañu yal na yàlla sama borom gën a wax nañ lépp daal waaw di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax bii mooy première fois nag ñuy ñëw fii waaye fas nañ yéene saay bu gàmmu jotatee ñu ñëw gàmmu ko fii ak moom bu soobee yàlla. waaw moom de xanaa euh, dolli kàddu rek ndax wax dëgg yàlla leen waxoon doy na sëkk sax. fii kenn moom fi kenn yàlla moo sàkk nit ñi moom leen koo yëg rek mu yëg la yow nag da ngaa yëg nit ñi moo tax nga moom ñu olof njaay dani nit bu la xam nga loo koy fayee da nga ko yaama moom bu la nit yëgee ba nga xam ne yëg na la la koy fayee mooy mooy yaama moom kon as yaa ñu moom kon noo ngi ñaan fan yu gudd lool yaag say rak say mag sa ñaari soxna yii comme ni ko sëñ mu ngoone waxee ngeen góorgóorlu rek waa wax naa ko léegi sama wax du njëkk ji ma ne li muy def ni moomu ko yónni bi sala ko moom waaw léegi nag képp koo xam ne nag ñëw nga mën a def li mu def bi fay la rek waaw jëf rek jëf rek fa la ñëpp rawante waaye nag yor sa yor li nga yor sa poos bi ba noppi denc ko ni sala salaam gëm naa yónni bi loolu ay caaxaan la la nga am da nga koy génne def ko ngir yónni bi jaayante génne joxe xaalis xaalis ñëpp ko bëgg waaye nag bu ko neexoon mu jël banque million yi mu def ci gàmm bi bu ko neexoon mu def ko ci poosam jënd ñaari xaram rek rey ko woo ay waa këram rey ko jeex na ci suba daanaka fajar ba tey ñu ngi fi ñetti nag yoo xam ne daanaka ëpp na un million nangam ak xar yi wax waxaale wu ma ko ak ndugg yeeg boisson yeeg lu ne nga xam li mu jënd ëpp na deux millions di dem hmm? lépp mu jox ko jaam yàlla suba ci bëccëg jigéen ñaa ngi ñëw di rang mu ne ni jox par mbuus ay loolu yaa xayti loolu sant yàlla la loolu sant yàlla si Ousmane ñoo ngi ñaan ci barke bi lépp baax rek waaw suñu xol sedd na nee naa man gàmmu ren gi mosuma ko am wasalaam. bu ñu bëggee lim nag defe naa fii la ñuy fanaan dañuy résumé rek ndax tey bés bu toll nii guddi Seydina naa sallallahu alayhi wa sallam nga seede nga teewee ko rek dèjà loolu change la nga seet nga fekkee ko rek change la ndax aussi c'est pas donné à tout le monde am na ñoo xam ne tey ñu ngi biir suuf am ñoo xam tey ñu ngi situation bu yéeme ñu ngi ci ay prison yàlla na leen fa yàlla jëlee ñu nekk ci kaso yeeg yëpp. kon situation bu moo gën a jafe téeméer junni yoon te ñoo ngi koy dund kon te bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko tal ko surtout tal bi ndax nit fekkee na ko pare nekk ci ay situation yoo xam ne mooy tey nga feebar baa nga tëlee mbaa ay jafe-jafe jamono jàpp la kon tey bu ñu ko seedee toog ci salon bi di ko fi feete rek kon loolu dañoo war a gën a sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu ñaari waajur gënooy suñu sëriñ muy nga nekk murit mbala nga nekk tijaan wala loo mën doon l'essentiel na nga nekk jullil rek loolu moo ci am solo donc di gërëm wa saal bi wa saal bi yëpp su suñu fi ku si nekk rek image yi wane na donc image yi doon na seede mais boo bëggee lim ku nekk turam ak santam defe naa affaire vidéo la te du gàtt la dafa am benn anecdote bu may nettalee du anecdote sax jàll na barke démb rek ci télé bi ma gis wali Seck di yëkkati xaalis bu bari di ko jox yaayam pour mu jël ay ay nit ay jullit ay xaru tabaski yaay ji téye si loxo bi ne ko mënoo ko mais xol mooy jëf te li ngay def nii bu amul xol bu rëy mënoo ko def dafa xaw a kawe lool mais bu amee dégg-dégg rek da nga xam fi muy waxee fi muy waxee mooy leer na ma leer yàlla am na facture yoo xam ne wala mu am bor yoo xam ne waroon na ko mën a fay fayewu ko mu jël bi def ko ay millions jox ko ay jaamu yàlla pour ñu tedd représentant yàlla si kaw suuf yàlla du wàcce di jox kenn da koy jaare si ay loxo jaam doomu aadama ñu koy jo jottalee seen biir kon bu la yàlla dénk ay millions joxu la pour yow dong daf lay jox pour nga séddale loolu nag il faut nga am benn culture générale pour mën a am am dégg-dégg boobu ndax da ngay juddoog nit benn koñ yaroog nit benn koñ ngeen màggandoo bokk benn génération mu jox la xañ ko lan nga defal suñu borom ba mu xañ moom yow mu jox la tous te jëf ju baax lañ ne moo lay fekk si biir bàmmeel mais tey ma am suma xaalis dënk ko suma biir compte banque ba si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw mbala benn ba si ñëw defuma ko ci waxuma ko ci ma faatu ay mbugal dana ma fekk biir bàmmeel ma faatu sama jëf yu rafet rek ñoo may fekk sama biir bàmmeel kon naa ko teel a jëf tey bu ëllëgee vidéo bi dañ ko mës a teg yàlla na yéex ñu ne waa ji kat am na lu fa defe te yiw bu ñu si yàlla defal tey barki Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bu nekkee million nañ yàlla nañ ko séddoo ñu ñëpp bu ma si ëppalee kenn su ma si nare kenn yàlla bu mu ñëw kon tey dama am contentement gars yi bëree bëri bëri déplacé wu ku mel ni Jamaïcain Mële di promoteur bu mag chaque jour moom ngi suma place ñuy toog di waxtaan di jiisoo ci ay ay ay business mu bàyyi léppam ñëw tey gàmmu silma daaw fii la gàmmoo ren fii la gàmmoo kon loolu bu nekkul lu neex ci xol lan moo neex ci xol ab doo ngi nii Touré jóge ko ba parcelle moom tamit ànd ak babakar Joni suma gain grand ma ne nga ne tok waxuma la sama gorol me mais mom suma xarit la ko jappé wala suma grand frère la ko jappé di gërëm nak aussi sama ñaari soxna yi ndax ndax def na ci dolem def na ci katanam ñi mom kenn mënu mënu ma wax luma ma leen di wax lu ñu sant leen gërëm leen ndax depuis ci suba ba légui amul ku ci tok 24 heures sur 24 ñoo ngi daw melni safa ak mawa kon tey loolu maa ngi leen ñaanal lépp lu ñu jur yàlla na barkeel bu ñu barkeel rek dama naan yàlla ñu jur lu ma gën ndax man baaxuma kon tey bu ñu ko defee rek def loo xamante ne dana sedd sama xol lool ñu gën a góorgóorlu xam ne àdduna amul solo ñi bokk ah, teen ñooy la ko mm-hmm. àdduna amul solo te loo fi gis fii dafay jeex nettali bi rek moo am solo te dara yàggul léegi tey ñu naan ay réseau la ngi nii ngóonee nga ne nekk ñoo ngi koy muur muy sëy kon génn leen a góorgóorlu li nga xam ne yàlla sas na leen sas boobu nag ñu leen sas yéenay war a relever défi bi wane na ah ñun kat mën nañoo jur li gën suñu jëkkër te man baaxuma kon maa ngi ñaan yàlla fay itam aussi muy sumay papa di suma yaay suma waa kër ñi nga xamante ne tey ñoo meññ yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba ci kanam ak kanam ak kanam ak kanam ndax ñun pareeguñ ci ñoom kon yàlla képp ku am kilifa buy dund mbala mu am kilifa bu gën àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana ku fi am aussi képp ku boo xam ne dafa tawat yàlla na ko yàlla yëkkati fëgg boppam mu jóg ci barke Seydina Mohamed jimaan gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp képp ku ma rek fal ne dama ndax gërëm aussi goro sama goro yëpp maa ngi leen di gërëm ndax ñëpp ma bëgg man dama ne aw ma ay goro ay xarit laa am ak ay morom wala ay frère wala ay papa koo ci gis su ma toog moom da naan kii xanaa moom kii moom moom rek la am sama gars yi aussi noonu comme ni ko grand bi waxee léegi man ñàkk naa problème ñàkk problème boo xamante bu ma gisee ko mer naa laaj lan lan mooy sa problème ma fexe nu moo ko saafara kon daal képp ku fi ñëw indi fi soxla yàlla na ko yàlla jàmm képp ku fi indi tawat yàlla na ko yàlla saafara képp ku fi indi soxla yàlla na ko yàlla faj ci barke Seydina Mohamed kontaan naa trop kontaan naa trop gërëm naa ñëpp Matar centenaire jóge ko ba France jóge ko ba Dakar Seexu moom man mënuma ko gërëm parce que ñoo bokk ndey ak baay muy Pape di Seexu di Menge di Faatu di Ume di di Aziz ñooñu moo ngi ni tëdd ay xale la mais tey mooy caatu kër gi mais day def yenn gestes yoo xam ne dama naan kii bu demee ba nekk mag mën naa daan ku ne ndax xol bi nit moom man xol laay jàpp si doomu aadama bu xol bi rafetee rek li si yëpp nice ku lim daal juum comme ni ma koy waxee maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp wasalaam seydina Muhammad xul xaddamaaw xul xaddamaaw cay jooju waay xul xaddamaaw fawqa kulli raqaba min ustaaral xurra kulli man xaba seydina muhammad muhammadun misaaluhu lam yaati kenn du seydina muhammad muhammadun misaaluhu lam yaati فيما مدى وأبدا لا يأتي سيدنا محمد سبتنا ربنا لم يريد مثل له فمثل لم يريد لو سيادة له البراء سيدنا محمد يوم ألست ولد السفا هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب والإمام والدليق والنبي والرسول والخليل وهو الأبيب والإمام والدليل براه البديو من خير الجمال وسانه خدوس عن خير كما سيدنا محمد كون النبي المنتقى محمد xayral wara muxtaara inna samadi seydina muhammad ku sopp yaa rasulillahi dugle taxaw ñu magal yaa rasulillahi sëriñub siidi barxaama ñes ana sobel yaa rasulillahi yaa rasulillahi yaa rasulillahi sëriñub cheikh ibrahima ñes borom faydu bee ana sëppay Seex Ibrahima Ñas ko di ko dopp mu ne dafa teg tànkam ba teggi mu jël tànkam teg fa kooku mooy muhammadu rasulilaay sallallahu taala alayhi wa sallama la ilaha illallah muhammadu الله صلى الله تعالى عليه وسلم